alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala man it li dal uh, Serigne Habib lii moo ma dal Serigne Mouhamed Hassan Bousso dama xëy mu taxaw ma ni ma suñu kalima yaa koy tarjama ci wolof fekkuloon ma waaj loolu wala ma bàyyi ko xel waaye gannaaw moom lañu ñu dénk liggéey bi te moo koy saytu bu gisee ni diw war na ko jàppale ci liggéey ñun war nañu am jéem a lu ba def ko na mu ko bëggee xalaat nañu lu ñu mën danañ ko ci def xaw ma nag dana euh, matal bëgg-bëgg ba mu déet euh, ci tàmbali kàddu gi gannaaw sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xër goo xam ni euh, société bu tudd séniko ak fédération nationale des maîtres coraniques da koo xër ci concours alquran bi ci quatrième édition bi ñu tàmbalee ko ci mu gën di yaatu jëm kaw xër gu ñu xër ci concours bi laal mbooleem pàcc Sénégal laal mboolem sensibilité yi ci wàllu diine ci wàllu ci wàllu tariqa laal leen itam ci wàllu région ak wàllu xeet loolu tax na yoon wi la concours bi doxee yoon wi nag moom dafa am ñetti jéego jéego bi ci jiitu mooy dem ci département yi département par département ñu des fa def fa éliminatoire maanaam saytu xale yi foofa ngir segg ña nga xam ni ñoo war a teewal concours bi ci région yi bu ñu jógee ci ñaar boobu mooy jéego bu njëkk bi jéego bu ñaareel bi ñu dem ci région yi seet ana ñam ci xale yi ñooy teewal région ba muy 14 régions yi ba ñu jógee ci ñaareelu jéego bi ñu dem ci ñetteelu jéego bi mooy dajale gone yi ci institut islamique loolu ci fukki fan ñu jëkk ci koor gi ngir seet ana kan ci ñooñu teewal région yi ñooy jiitu ku jiitu ku ca topp ku ca topp ba lim ba ñu amoon muy ñeen fukk mat loolu alhamdulilahi rabbil alamina yëpp def nañ ko àgg na ba rafet na li ca topp nag ca liggéey booba muy ay ab ab ab seetlu bu ñu def mooy liggéey bu mag la woon bu rëy la woon bu amoon solo la bu ñu bari bokk la waaye ña ka ña féetewoo woon ña féetewoo woon wàll àtte gi ndax liggéeyub alquran atte ca yombul du kuy jàngale alxuraan ku ne man nga caa atte da ngay am ijaaza xam méccam atte ci liggéeyu alxuraan nan lañ koy defee bañ ko defee am nañu équipe bu mat juróom-benn nit mooy ñu nekk sama gannaaw ñii jiite leen ku ñuy wax Mouhamed Hassan Bousso moom tey ci ñuy sagal Sénégal la bokk ndax ci juróom ñi dàq alquran ci àddina bi ci la bokk kon euh, loolu may mu jiite équipe boobu waaye du sant Bousso wala sant njaay wala sant Diop juróom yooyu juróom mbenn yooyu ni ñu koy toftalee mooy a Cheikh Habib Kane jóge Kaolack a Cheikh Mouhamed Alpha Dia jóge Kanel a docteur Mouhamed Mbaalo Fall jóge Louga a Cheikh Abdoulahi Ndiaye jóge Touba al Muqri Abdou Samad Mbuub jóge Touba ak Cheikh Ousmane Sarr bàyyi ko dakaar ñii ñooy ñi nga xam ni ci jiitug ak saytug Mouhamed Hassan Bousso ñoo doon taxaw concours bi kon jazakumullahu xayran euh, euh, liggéey ba nag metti woon na ndax tànn bu fekkee ñëpp dañoo man day jafe te alhamdulilah rabbil alamina xalaatu jàng alxuraan ak bëgg ko mu ngi avancé ci Sénégal bu baax a baax loolu ci bi fadli concours bi nga xam ni Sénico ak fédération bi ñu ngi koy organisé moo taxoon amoon na ay galgalante amoon na ay jonge amoon na wone man-man bu metti goo xam ne taxoon na départagé leen euh, jafe waaye teewul départagé nañ leen maanaam te toftale nañ leen ka jiitu ka ca topp ba ni mu ni mu ni mu ni mu mujjee euh, loolu xew-xew bu rëy la woon boo xam ni tiitar la woon ndam la woon ngir alquran waaye ndam la woon ngir école yi daaray alquran yi nekk ci senegal yépp waaye tam lu doon firndeel la lu doon firndeel la effort bu rëy bi nga xam ne suñu maami daara defoon nañ ko ci réew mi muy law di càllale ba ëgsi tey ci borom daara yi nga xam ne ñu ngi jàngale tey ci réew mi muy effort bu rëy ci jàngal xale yi ak yar leen ak faleen alquran ba ñu mën koo jàng ci anam gi nga xam ni danañ ko mën a wane ci biir réew mi waaye danañ ko mën a wane ci biti réew mi loolu moo tax euh, ci turu a Sayid Mouhamed Hassan Bousso mi jiite laj na bi nee na mi ngi sant bu baax kuréel bi nga xam ni ñoom ñoo doon saytu concours bi te Sayid Ousmane Ndiaye doon ko coordonné ci ak taxawaayam bu rafet ak itam bàyyi laj na bi comité bi juri bi liggéey seen liggéey ci anam ga mu gën a selle fakkutalu leen ci dara gàllankaru leen ci dara imposé wu leen dara ba liggéey nañu ci jaww yoo xam ni yu rafet la yu baax la ñu ngi koy sant bu baax a baax moom Serigne Ousmane Ndiaye ci loolu waaye di sant tam mbooleem ñi nga xam ne àndoon nañoo ñoom ñu bari lañu waaye ñu ngi ciy tudd ak Seyid Mouhamadou Lamine caam ak Seyid Mortala jóob ñi nga xam ne dañoo ràññiku ci seen taxawaay ak seen jikko yu rafet ak seenu farlu ci liggéey bi waaye di beral cant a Sayid Biram Pouy ingénieur la moom euh, technicien la waaye taxawaayam bu rëy ak beesal innovation yu rafet yi nga xam ni ku gis turbine bi podium bi ak na mu daan demee ak yoon di nga gis ni innovation yu rëy am nañ ci am na ci ñu ngi ko ci sant bu baax a baax a baax ci taxawaay bu rëy boobu ci mujjantalu wax ji ñu ngi jël nag cant yooyu yëpp gannaaw bu ñu santee suñu borom di sant a Sayid Abdoulahi Dia ak waa Sénico ci taxawaayam bu rafet ci liggéey bi nga xam ni ànd na ko ak fédération des maîtres coraniques liggéey ko def ci coonaam def ci alalam waaye li tax ñu gën koo sant du alal ja rek waaye woyof gi nga xam ni yor na ko moom di ko dunde ak ñun ñu ngi ko ci sant bu baax a baax a baax loolu mooy li ñu bind ci euh, jur bi léegi ñu ngi leen jox noo yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.